ayca mbokk yi mbokk yi arbitre bi mi ngi waaj a sifflé ci Kabou Gueye ak Coly Faye numéro 2 ñaari mbëri Kabou Gueye Coly Faye am na lu muy siw toj na nan tojaat na nan laay laay la laa <laughs> na cuuj waaw waaw mënoon nga ma ko mënoon na ma nen yi ma reeree ko ah nen yi mënoon naa ci ñaari omelette sur le plat ah, waa anti bi reeree ko ndeysaan ah cam Coly Faye ma ngay dox doxul ay Coly waa eh eh Coly mii ah, waaye waaye kàbboo ngi na tekk di ko xool kàbboo ngi na tekk di ko xool ah sama waa ji Mbaye sama waa ji Mbaye Sow lekk bi waaye am na problème borom ñaari galon yi ndeysaan Mbaye Aliou na da nga fit ayca arbitre bi da ngay wax ak ñoom arbitre bi da ngay sama caméraman sama caméraman moo mën ci caméraman yi waaw waaw ayca Hann TV Hann TV moo xew ci jamono waaw jeex na waaw yaa ko wax la diggante Kabou Gueye waaw mais Kabou Gueye a ngi wàcc ba ci aye eh, eh, eh combat bi neex na. Ah, mais ñi mayante dara sa Kaabu door na. Coly Faye Kaabu Coly. Coly Faye Kaabu ñu ngi. laay laay la law. wóop wóop wóop wóop. Oh, Gammo door. frapp del wax frapp. waaye Coly nga wàcc ba del wax frapp. waaw waaw Gammo frappé na ko. waaw frappé na ko. Gammo frappé na ko. Coly am na ñaari ah Koli. Koli Faye dugal na ñaari loxo ci ngëm bi. nga yaakaar ni gàmmu jàppul. Ah, mais gàmmu nga sani kaw. gàmmu jàpp na. Ah, eh, du yomb. du yomb. du yomb. Eh, eh. ay mayante wu ñu dara dañoo ñemente. dañoo ñemente. dañoo ñemente. wu ñu dara. dañoo ñemente. waaw waaw. ngi nii. ah cam. waaw moo dañoo ñemente Kabou Gueye eh eh eh Kabou Gueye moo nekk ca kaw laa ilaaha illallaah ah Coly Faye kon da ngeen ci suuf Coly mooy ndaama gi waaw Coly mooy ndaama moo tax mu roofu ko ci suuf dool ak ndaama moom wóorul bu yàggee rek avantage bi ci ndaama li waaw waaw waaw yaa ngi wax làmb fi mu nii fi ñu nii lan moo fi mën a xew fi mu mën xew nii ak Coly mën na wàcc mën na koo yenu de. ah waaw waaw de. waaw Gamo diis na waaye Koli tam diis na. Ah! Ah! ñaari mbëri ñemente nañu. waaw ñemente nañu lool ba léegi. yee. ay waay tey di jeudi 4 avril 2019 Iba Mar Diop. oh Dieye production moo fi woo. arbitre àtte na arbitre àtte na. dañoo jàpp rek te bëreewuñu làmb balaa neex ay frappe di am. waaw frappe. waaw delloo frappe. na. waaw arbitre na waaw. arbitre na. sangawaat eh! eh! daan na ko. kàbbu daan na ko li fay. kàbbu daan na ko li fay. Eh! da koo da koo boof da koo boof yee Kaabu daan na qualify Kaabu daan na qualify Kaabu daan na qualify Kaabu daan daan na qualify yee woo ay waay daan na ko daan na ko jël yaay da koo da koo boof. da koo boof. da koo boof. dafa jël coup nag. dafa jël coup. dafa jël coup. dafa jël coup.